la fi ñëw indi ziaru réew mi Walf Quotidien ne xalif général des mourides wu nga xamante ni def nañ ko ba Macky Sall am na ay ndénkaan yu xamante ni def na ko xalif bi Le Quotidien jamono jooj nag muy xam ne ni Macky Sall cant ak tàggatoo la amaloon démb foofee ca Touba njiiti réew mi ni li ma fi dese ci réew mi naa def sama kéem kàttan ba aar kaaraangeeg ñi nga xamante ni ñoo fi nekk ak seen alal waaye sañ Bass Abdou Khadre Mbacké mi nga xamante ni moom mooy porte-parole xalif général ni Akay ah Sall yow daal gàccee ngaalama yaa ngi fiy génn génne waaye génn bu rafet nga fi génne te li la ko may moo di ñaanu sëriñ Muntaxa Mbàkke l'observateur dina xamal ni discours Macky Sall ci kanamu xalif général des mourides sëriñ Muntaxa nekk discours bu daw yaram loolee nag sëriñ Muntaxa ba mu ko déggee ba noppi mbégte la ci àndal ak xel mu dal Sud Quotidien ni Macky Sall profité na si occasion boobule di wax kilifa diine ñu ñaanal réew mi ngir mu am jàmm ba noppi woo leen ngir ñu yëkkati seen kàddu wax ba réew yi nekk ci déndu Afrique li nu baaxoo woon mu dal fi dellusiwaat Macky Sall nag am na ab gisee yu nga xamante xalif bi vox populi ni gise googu la nag mbir Ousmane Sonko lañ ci doon waxtaane wàllu wér-gu-yaramam ak grève de la faim bi na leen ko ngir mu jébbal ko Ousmane Sonko ñu yombal leen gise googule Serigne Mountakha Mbacké ni ko ah Sall man day sama waree fu jullit rek laa def waaye nag ki nga xamante ni moo yor moo yor dogal gi bu ko neexee bàyyi bu ko neexee bañ a bàyyi waaye man li ma war def naa ko Macky Sall njiitu réew mi si ndaj ndaje moomule di artu ñi nga xamante ni ñooy yëngal ak yàq alal nit ñi ci réew mi le mandat yéeni moo ko xamle ni président Macky Sall nee na képp ku nga xamante ni yàq nga wala yëngal nga dëkk bi rek lépp loola daal rek yaa ko teg sa bopp jamono jooj nag bés bi la jour di gàtt ak ñun ci riir gi nga xamante ni banque yi ñu ngi koy riir jëmali foofee ca capital mouridisme di Touba moo tax bés bi duppee xëta mu njëkk tuuba un bon client benn banquier li mu xam ne moo di Touba nag alal ju bëri lan faa jële ca jamono jooj nag les écoles yéeni kaay dalal maître Sekal di Marcel di avocat nekk ca barreau bu Paris nag amul lu mu deseel lu Juan Branco di avocat Ousmane Sonko yàq naka lu mel ne xamee nee na di Juan Branco bës rek la bëgg moo tax muy doxale ni ni mel waaye Ousmane Sonko bi nga xamante ne moo nekk ci kaso ni muy doxale àndul ci kaso yooyu la nag yor yor moom la xëyee ak parents yi nga xamante ni seen njaboot dafa nekk ci kaso yooyu la jafe-jafe yi nga xamante ni moom la daj Moustapha Diop nii rëbës boo fa demee sa yaram day daw ak parents yi nga xamante ni dañ fay ñëw di indil seen njaboot ay lekk wala yeneen jumtukaay nee xamante ni nag seen yaram araamalul kaso maanaam kaso ragaluñ ci bokk na ci kii nga xamante ni dafa dëbb li njaay ñeenti doomu aadama yi nga xamante ni daf leen digoon ni da leen di yóbbu bitim réew lekk seen fukki million ak juróom libération yéenekaay ni ko yemul foofu de njabootu Pap Saw di meeru Sangalkam ñoom it dëbb nañ leen li njaay juróomi million ndaxte Chamsidine Konaté moom moo ñëw ni la laaj leen juróomi million ñooñu jox ko boobee lañ ko gëj a tegi gët moom Chamsidine Konaté ba nga ko tegee loxo tamit ndeke am na yeneen fukki doomu aadama yi nga xamante dëbb na leen li njaay fanweeri million ak benn da digoon ay visa ak contrat de travail ñeel chantier coupe du di dugg kaso Cheikh Bara moom génn na kaso ndax am nak bàyyi négandiku sport ak stade yéenekaay Ligue des champions City ak Barça ñoom mucc nañ waaye PSG Real ak Bayern jamono ji nag ci ay poule yu metti lañ nekk ndax démb bañ doon amal tirage bi Ligue 1 française Nantes Marseille dañ ko amal tey bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee Ismaïla Sarr ndax dafa war a enchaîner li nga xamante ne moo di ay bitam a